leen ci gunge leen ci yàlla neen ko yàlla fay ñoom it yàlla bàyyi leen suñu kanam lu yàgg yàgg yàgg ñu continuer di ñaanal réew mi di ñu tette di ñu aar di ñu jox seeni xalaat ci li war a defar réew mi. bi may daanelee nag ndax kàddu gi du gudd mooy lii dafa war a am lu ñu jàngal ñun ñëpp mooy gëm sa bopp ñu gëm suñu bopp ndax gis nañ Sénégal ni communauté religieuse yi exemple bi ñuy wane toujours mooy exemple gëm sa bopp. ñun ñi nga xam ne nag ñooy yëngatu ci beneen fànn wi muy mbirum état ak mbirum euh, lu ñëpp bokk ci mbirum àdduna exemple la war a doon ci gëm suñu bopp gëm suñu bopp ni war nañoo mënal suñu bopp du lépp lañuy tàllal suñu loxo di xaar mu jóge bitim réew bu ñu gëmee suñu bopp takku gëm liggéey yàlla mën nañoo defal lu raw lu kawe suñu njort te lii wane na ko ndax ñi ko def jéggaanewuñ ko fenn laajuñu ko kenn waaye nu ñu néew néew doole dërëmu taalibe yi dërëmu jullit ñi la dajale di ci dugal ba mu jur lu mel nii nga xam ne tey ay milliards dugg na ci loolu di benn njàngat ma ciy jàngat bu am solo ñaareel bi mooy jub ak jubal euh, président Bassirou Diomaye dafa wax jub jubal jubbanti ñu yónnee ñu ab vidéo boo xam ne euh, xalif général de Tidiane def naa ay at ci gannaaw dafa waxoon lu mel noonu waxee ko sama dëkk fële ci xombal kon mu dem ba daje te ñoom ñaari yëgowuñu waaye li muy wone rek mooy lu ñuy def te jiital ci jub ak jubal mën nañ ci am résultat ndax bu doon ñu dénk liggéey bi dañoo damm mbir yi def ko seen poos kon lu ñu gis résultat bi kon ñun ñi yàlla dénk état ñu nit te loolu mës doon problème ci Sénégal ñu fàttaliku ni dërëmu sénégalais yi lañu dajale comme fii niñ fi dajalee dërëmu jullit ñi bu ñuy def dañu war a fexe ba mu dem ci faratay sénégalais yi bu ko defee ñu gis résultat bi ndax xam naa ni lii buñ la nee nangam lañ ci def ci milliard li ma leer ba leer mooy de suñ nee woon dénk nañ ko ay nitu état boo moytul ñu multiplier ko par te résultat bu du am kon jub ak jubal mooy joxe résultat gëm sa bopp wóolu sa bopp xam ni fi ñeneen jaar ba egg fi ñu yegg boo fa jaaree raw leen ndax am nga lu leen manqué ñoom muy gëm-gëm kon yaay yooyu buñ ko dajalee rek yàlla mun nañu yombalal lépp ci réew mi suñu communauté religieuse yi nag wane nañu exemple def nañ ko barki démb ci Masaalikul naan def nañ ko tey fii def nañ ko feneen ak feneen ci yoo xam ne toujours ci seen farlu bopp seen jàmbarte seen organisation ak seen jubal ci ni ñu yore mooy joxe résultat boo xam ne ñëpp dañ ci teg seen bopp kon ñun ñiy nekk ci wàllu état dañuy dañuy ñëw jàng à l'école des communautés religieuses moom nag dafa boole ñaari xam naa bu delloo summi mbubu imam bi donte kenn du ko summi sax waaye bu delloo fee ci IGE ba dina àndaale lii mu doon source d'inspiration boo xam ne war na jàppale ñi nga xam ne moom ñoom la yàlla dénk tey ñu war a jëm ci defaraat réew mi jubbantiwaat ko euh, loolu mooy njàng jàngat yi nga xam ne ñu ngi koy jàng ñu ngi koy ñu ngi koy am fii.